mbégte lu rëy ñeel waa kër maam Cheikh Rafal Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides demoon xooli liggéey bi nga xam ne moom la leen joxoon mu nekkoon jële fi stade bi tabax benn complexe islamique akub juma Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides bég lool ci li nga xam ne jot na ci teg bëtëm. mu ne dafa sant si sant suñ borom bu baax a baax. mu ne maanaam buñ nee Baye Fall. te Baye Fall di dëgg ci moom. te bay Fall di dëgg ci moom. daf may daal di gënal man. mu ne daf koy gënal boppam moom mii sëriñ bi. ngir sëriñ Touba ngir jëmmi sëriñ Touba. man ma xam ne rek moo nekk ci xolam. man ma xam moo nekk ci xolam. mu ne loolu rek mooy ay kàddoom. dégg naa sëriñ bi dégg wax ji bu baax. mu ne sëriñ bi sëriñ bi neen dégg na kàddu yi bu baax a baax. mu ne li nga ci fas yëpp noonee rek lay amee nag. moom moom ko jaarale mu ne moom sëñ Bass mi lépp ci moom rek la ko jaarale woon. gannaaw ba mu feddalee moom sëriñ Serigne Mountakha Mbacke ne caytu wi mi ngi ko teg ci yoxoy sëriñ Bassirou Mbacke Abdoul Khadr jox na ko ndigal mu sant ñi nga xam ne ñooy Baay Faal yi ci liggéey bi nga xam ne door nañ ko ci anam yu mucc ayib. nee na jataay bii day jataayu mbóot de di jataayu Pastef. ndax ku nekk xam na diggante sëriñ bi ak taalibeem ba maam seex Ibrahima Fall nee na kon nag jataay bii bu sëriñ Touba yëkkati ay jéegoom ñëw ngir xool fi mu toll ni ko sëriñ Moussa Mbacke waxe léegi néew na sëriñ Touba jug di seet si liggéey bu eggagul waaye seen yitte. ak seen pastéef ak seenu taxawaay ak barab bii ni mu demee nee na ndax lépp day wane mbirum sëriñ bi rek ndax nëgëni si daaw la fi sëriñ bi ñëwoon de ku nekk xam na li fi nekkoon waaye sëriñ Tuubaa nee lu mu bëgg sunu borom da ko cay fekk si de ndax wuru woon a mën a gaawe ni mu gaawee nee na ku fi ñëw ba gis li fi sëriñ bi naal te sant leen ko ak pastef bi ngeen ci doxe sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax di tàmbalee cant gi nag ci sëriñ Cheikh Jëmb Fall nga xam ne mooy kilifa njaboot gépp di ko ñaanal bu baax mu gën fee yàgg yàgg koo wéttili ci liggéey sëriñ Tuubaa bii mu ne yéen ñi topp ci ginnaaw sëriñ Cheikh Jëmb faal te ñëw fi teewal ko fi sëriñ baa ngi leen di sant bu baax ak njaboot yëpp ni ko sëriñ Falilou Fall waxee léegi rek yóbbaale na kàddu yëpp kon nag jataay bi daanaka du jataay wax de ndax jëf mëntu ànd ak i wax te yéen de ku ne xam na ni jëf lañ leen xame de waaye xamewuñ leen ay wax nee na kon nag sant rek moo ci war ndax la Cheikh Abdoul Ahad Mbacke waxoon rek dafa waxoon ni kër Serigne Touba dafa am bañ kër Cheikh Ibrahima Fall am bañ nee na kër Serigne Touba mbañam mooy ñàkk a joxe ndigal kër Cheikh Ibrahima Fall mbañam mooy ñàkk a jëfe ndigal kon nag jataay bii dëggal na ni loolu daje na ci kon nee kon li ci des moo di sant rek ñaanal sëriñ bi mu yàgg fi lool te lim bëgg a liggéeyal Serigne Touba mu àgg nam ko bëggee rek ndax moom amul benn yitte soxlawul dara ci àdduna lu may liggéeyal Serigne Touba ak bëgg ñëpp dox ci pësteef di ko sellal ngir jëmbi sëriñ bi nee kon nag na seenum xel dal bu baax ndax bu yëkkatee jéego yi beeg si fii lam ñu fasal mooy li ci ñun ndax sëriñ bi kat mas naa liggéeyloo taalibe yi ca njaareem ba noppee mu wax Cheikh Ibra Faati ni ko damaa bëgg ngeen fas li ngeen bëgg Cheikh Ibra Faati ni ko nan bàyyi nga fasal ñu ndax ñun buñ fasee dina am lu nu fàtte kon nag sëriñ bi nanu fasal rek fasaaleel taalibe yëpp li nu bëgg lépp ñu am ko li nu ragal lépp ñu mucc ci te lépp nag mi nga aju ci topp ci ginnaawam rek déggal ko bañ koo jiitu ci lenn te xam ne loolu mooy sunu njariñ adduna ak alaxira nee na sëriñ Fallu li nga ñaan ci màggalu sëriñ Tuubaa gi fekkoon nga ci sëriñ bi nee ba mu joxee ndigal ci màggal gi yàgg na te amu ci benn xalaat mës ci amit benn xalaat lu dul nam ko fekke woon mu wéyale ko noonee rek ndax nee na ñaar rek moo ko fi bàyyi wattu ak sàmm kon nag bis bi ni ko sëriñ bi bëgg woon rek njabootam gépp itam wéyal ko ba mu egsi fii benn xalaat mënu cee am de lu weesu noonee kon loolu na ci seenu xel dal nee na ñu jeexale ko nag ci sëriñ bi da koo yónni woon ci sëriñ Cheikh Jëmb joxoon ko ndigal ci liggéey bi ba nu agsee ci koor gi mu yónniwaat ko ni de koo jox ndigal ndax ndogu yi ak liggéey bi mënee su koo boole ñaar yëpp danoo doon farata ta xam na ne bu nu bàyyi woon ñu boole ko de kon moo tax mu yebaloon ko ni ko ne leen yeewi ban jotaan ndigal li kon nag nanu xam ni waxtu wun amee ak yaatu jotaan nanu ndigal ci tàmbali liggéey bii noonu lanu ko sëriñ bi sante bokkoon ca kilifa ya fa teewoon na sëriñ Moussa Nawel Mbacké xool fi liggéey bi toll sant ko boromam yéen ngeen xam ne kenn liggéeyloo yëg ne yéen a ngi liggéey mu xam fi ngeen toll mu xool yaatuwaayu li daara ji lu mu fi nisel mu xam ko mu gis ko boppam lii mooy yoon wi ci kàddug Serigne Cheikh Jumbu Fall xalif général des Baye waa kër maam Cheikh Ibra Fall sant bu baax sëriñ Serigne taxa ci ndigal li nga xam ne jox na leen ko. waa kër Cheikh Fall gépp teew nañ indaale seen cant indaale seen siyaare indaale seen nuyoo te xam ne lii nga def day moom bëgg leen dimbali rek a tax nga def ko. ndimbal tax nga indi nga indi fi ndax bi nga leen joxee ndigal rek nga leen joxal ndimbal li ndigal nak sen xol na ci guuy tam nañ ko bismillahi rahmani rahim no ñaan ci barki mag yi alhamdulilah rabbil alamin ba noko ko bëggee rek defé ko ni jëkku ndigal li lool yaggo yaggo yàgg ko jëfe lool lii la lu reej lu reej ci kër Sëriñ Fall la mhm. sëñ Tuubaa mu tabbi kër Sëriñ rafal mhm. lu da xam naa nun ñëpp da woon tëdd kenn warutoon toog tok mbaa ngi mbaa ngi dund sax mhm. waye noko ko jégalu kaddu yi ndax kaddu yi kaddu yi kaddu yi neew la ab talibum dañuy wax ni ci digam ak sëriñam da war a mel am neew ci loxoy way sang ya bu yëkkati ay cadeau day melni ni loolu ak may la ci mom waye bu ñu di koy ndigal nag kon day mel day top lu ak top la xamna bëgg no indi ndimbal rek tax mu ñëw tax xam mënu ko yónnee té am ci lo xam ne bëtam yu xol bëtam yërmaane yu ni xol ci la sunu defar yu né kon noo ñaan sa borom mu dimbalé nu ci di dol ñu yërmaande doolu ñu jéggal doolu fi ak mucc té xéewal yu ñu ko ma liggéey lu baaxa baax su xol suñu la sét do seet ba wax tey ndax lii moom ko moom daal bu na jom jom nañu parce que Ibrahima Mbacke mu baax ma ko neewoon nag Sëriñ Tuubaa bu ko defalee loo mën mu defalee loo mënul su ko defee loo mën defee loo jom waaye nag li ñu am jomb noonu ko am déet ndax ko ndaale loolu a na ci mu fi nga ñëw tey si sa ak maam ju sa wajur baax wa na fi mbas mi jógee tey kenn diggante dara na lépp jeex takk takk bu Sëriñ Tuubaa bi nga xam ne moo war a woote cant suñu borom ni santal ko yàlla ci yàlla yóbbu murid yëpp ak jullit yëpp bu ñu yoon sarale ko ni mu ko bëggee woon def ko nii kon nag yoo bëgg yoo leen sopp yaakaar kon nag noo ñaan saa nga yàgg fi lool na fi yàgg lool te wér ba li nga naanal sa waajur baaxoo naanal ko sa maam ji lépp nga àggale ko. ñuy fàttali ne ñoom Baye Fall yi juróom-ñaari fan ci weeru janvier ci atum lan tojoon stade bu Mbàkke bii tàmbali liggéey bi ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier ci atum